Fatick Diamniadio ba xolu Ndakaaru ne da koy jàpp. d'accord mais mais pour précision pour précision Bassirou Gueye Seynabou Diakhaté la remplacer à l'OFNAC Seynabou Diakhaté. Mhm. moom la remplacer OFNAC et non pas Nafi Ngom Keïta. ah Seynabou waaw Diakhaté waaw ñaari ñaari. léegi léegi Bassirou Gueye gis nañu Ousmane Sonko dafa doon ay PV nangam nangam moom sax. Serigne Bassirou Gueye moom itam tontu na li mu wax lépp amul ndax moom am na loo xam ne bu ko génnoon mooy gën a dugal Ousmane Sonko. léegi nag loolu mooy lu yéeme xam nga sëriñ bi procureur de la république xam nga lan mooy rôle am mooy gis ne lii am warul am mm-hmm. am na ku tooñ kuy violer loi bi mm-hmm. am na kuy fitnaal askan wi mm-hmm. nga dugg ci mooy autosaisine procureur mu liy njëriñam mooy Abdou Khadi cuun tooñ na ko te Abdou Khadi mënul fajal boppam Abdou Khadi jël sol dem police wala dem gendarmerie wala mu dem ci procureur ne ko cuut mii mm-hmm. tere na ma mu ngi may def nii te bugguma jot rek moom léegi nag maa ngi la ñëw di kalaame yow ci lay woo gendarme yu ne gendarme bu nekk ci koñu cuun mm-hmm. maa ngi leen di jox ndigal demal ngeen wool moom ngeen wax cuun fan la teg di tooñ Abdou Khadre di ko def mm-hmm. léegi nag bu dee wàllum sëriñ bi crime dañ la ne da ngay enquêter à charge décharge donc à charge décharge mooy bu da nga dugal kayit bi mu koy génnee waa léegi nag moom da doon dugal ay kayit yoo xamante day dugal waa rek te du dogal koy génne. ah waaw léegi nag loolu mooy danga nga far. Mhm. yow nga war a tëddee njaaxaanaay nii. léegi nga wàcc ci balance bi rek ah, waa ñu lekk ñaari kilo ceeb kee nga ne ko benn genn wàll euh, kii euh, xaw ma kii mu tudd sax euh, moitié kilo ngay lekk. moo ko ne mhm. yow yemale woo alors que dañu la ne da nga war a yemale. enquêter à charge. et également à décharge donc booy booy dugal rek del génne dugal génne dugal génne loo xam mën a kii maanaam joxee mhm. boo dégloo un témoin mhm. bi da ngay déglu un témoin koy décharge mhm. boo dugalee témoin beneen buy de koy dugal kon da ngay indi lu mu maanaam ci misaal mooy masseuse yooyu doon wax ne Ousmane Sonko nangam nangam moo ko def da ngay ut comme genre Ndeye Khady Ndiaye nga teg Ndeye Khady Ndiaye way nga indi keneen koo xamante ne aussi moom day day wax lu ci xam maintenant nag foofu je pense li nga xamante ni mooy li am mm-hmm. ñu bëri xam nañ ko et je pense que Ousmane moom nee woon na leen euh, lii ñu may toppee à la dañ may dañ may complot mu cité si ñuy bëri mm-hmm. te pare maa xam Diallo mooy meeting Kër Massar ñëpp dégg nañ ko mm-hmm. mooy ku xam luy politique ku xam luy désobéissance civile man jour ba mu waxee désobéissance civile yàlla xam ne maa ngi Kër Massar man du ma waa passé pourquoi nga parce que dama xam fan lay mujjee parce que dama xam fan lay mujjee. arrestation foofu kese. léegi nag man gisuma arrestation conséquence arrestation bi lay gis maanaam nit ñi di dee. daf ma leer na nit ñi dañuy dee. dañuy dee waay léegi nag man loolu nit ñi di dee. Mhm. daf maa leeroon ne li code procédure pénale wax xam nga lan la wax ci crime. lan la wax daf ne nit ki bu lee dañ lay toppee wàllum crime. Mhm. je pense que c'est trois cent quarante xaw mhm. daf ne. bu fekkente ni nit ku ñuy topp ñaari moom mun am soit tu es en détention soit tu en liberté mhm. soit dañ laa jàpp nga nekk ci kaso bi walla nga nekk ci biti di dox say soxla voilà ñu ne lay bu fekkee da nekk ci biir kaso bi loolu du problème le le le le le kii le greffier de la chambre criminelle mhm. bu desee vingt quatre heures dalay lay bind notification ne la yow suba war nañ la àtte nga ñëw ñu indi la ñu jëlee la prison mhm. yóbbu la ci greffier nga signé ne suba di nga ñëw xam ñu ne la bu fekkente ne dangaa ngaa nekk ci biti nag. nga nekk en liberté. Mhm. à 24 heures. bu dee suba lañ lay àtte da ngay dem signifier ne. da signé di nga ñëw suba. Mhm. léegi ñu ne bu dee ñëwloo le président de la chambre criminelle. Mhm. mar na ordonné à la force publique pour ñu dem jëli la. mandat d'amener waaw. léegi nag mandat léegi ma ne léegi Ousmane Sonko du dem man dootu maa leer. léegi bu demul juge bi. bu waxee ndem leen jëli ko. Mhm. mooy bakkan mooy tey bëri nañ tey loolu moo xewoon ci Ziguinchor quand même. léegi nag loolu la. léegi moo tax juge état dafa am raison garder. Mhm. dafa l' état a eu savoir euh, avoir raison garder. Mhm. ci loolu loolu la état am. moo tax état bi non état bi daa ragal dafa nef nii et pourtant mënoon a dem mais bu demee ay nit ñoo fay dee. waay tu penses que da ngay dem Ziguinchor boo yooyu barricadé. ñooñu les jeunes là barricadé tranquillement yóbbu loolu mënul nekk. c'est-à-dire que loolu foo ay hypothèse naan armée bi mën nañu dem génn ko ci dara du xew nangam nangam. mais mais daal armée sëriñ dama lay wax. Mhm. yàlla xam na ne bu ñu mënoon nañ forcer. mais ba forcer ay nit yu bëri ñooy. dee te lu tax ñu dee procès. Mhm. procès du am. parce que su dëkk yow tu penses que di nga rey nit. te lan moo lan mooy du wóor na boo demee wàcc sur le terrain di force nit ki wàcce sa hélico ci biir kër gi sax. Mhm. naan da nga koy jël coppet. comme ni ko waa ji waxoon yóbbu Dakar. yóbbu <laughs> <laughs> yóbbu <laughs> coppan yóbbu fajar laa koy yee coppan yóbbu <laughs> même boo ko coppatee yóbbu. Hmm. foo koy àttee. Hmm. da koy àtte ci asamaan boo àttee da koy tëj. léegi boo ko tëjee fan nga koy tëj. mais ak les conséquences. konoon du ñu yegg fii suivre. konoon du ñu yegg fii laa la wax. duñu egg ci élection. wallaahi du ñu yegg. kon kon arme bi jël nañ comme. konoon du ñu yegg fii force mm-hmm. konoon Macky Sall sax nekkul Maroc. kon Macky Sall nekkul Maroc. comme ministre ba. bi nekkoon ancien ministre. Mhm. kenn du génn réew mi mais ñu bëri également yaa ngi xalaat kenn leen di bàyyi. d'accord mais Serigne Bassirou Gueye sa nomination à l'OFNAC euh, dure lay nekk wala président mën na ko mën na ko mën na ko jëlee foofu. je pense que c'est pour cinq ans. cinq la nomination mais. mais xam nga Serigne Bassirou Gueye Sénégal. loi modification OFNAC dafa renforcer les pouvoirs de l'OFNAC. Mhm. Macky Sall moo ko def en deux mille vingt quatre bii. mu renforcer les pouvoirs de l'OFNAC léegi président de l'OFNAC mhm. mun am na prérogative def li procureur mun def. nekk police. waaw maanaam mu classé dossier cent suite alors que l'OFNAC bokkul ci justice. Mhm. OFNAC bokkul ci justice de. waay OFNAC c'est une administration indépendante. boo xamante ni moom dépendre ci justice. Mhm. mais le président de l'OFNAC am na possibilité bu dégloo cuun même bu fekkente ni bugg na ma protégé mu xam ne man def naa lu yoon tere mm-hmm. am na possibilité mu classé dossier bi sans suite léegi bu ko classé sans suite kon procureur du si jot loolu la mooy lu gën moo bokk na ci pouvoir yu bees yi léegi nag pour nga def bale bi nga soxla jot ñi nekk fële mm-hmm. de wóoru la ne def na leen dossier sans suite foo nga éjecté ko mooy siège bi foo mu tëb li bu tëbee nga indi keneen koo xamante ni su boobaa moom même moom même si y a possibilité mu def classe sans mm. suite puisque justice moo war a décider. parce que mm. justice moo war a décider day. day am lu am personne de décider. waaw léegi nag les procureurs de Bassirou Guèye ci pouvoir yi bees yi président de l'OFNAC dafa am pouvoir mu classer un dossier sans suite. kon mën nga xaarandi foofu itam. ah day dañ euh, changement am fa. Ah, day dañ day dañ sëriñ bi yow yow agropole le gars de l' Sénégal. Mm-hmm. son mandat c' était 5 ans. waay 2027 la waroon jeex xaw ma 29. 28 ko fa waaw mais lu tax ñu jëlee ko fa. parce que li ñu doon xaar mu def ko defu ko. defu ko alors ko loolu ci clause yi moo mën na tax ñu jëlee la fi. d' mais mais ci cas bi circonstance bi ñu nekk bu fekkee nag la sëñ Bassirou Gueye mi ngi def li liñ ko sant publier na euh, rapport yi parce que gis nañ sax mu ne le président de la République m'a ordonné de publier les rapports. léegi les rap il lui a ordonné de publier les rapports. et les rapports qu'il a reçus avant l'arrivée du président de la République c'est-à-dire que rapport OFNAC yu ñu jot matul dix OFNAC ay centaine la jot la yore centaine de rapport waaw yoo xam ne dañ ko war a fësal mais fu Ngom ketam kay moo la wax ni mm-hmm. jox naa ah. joxe naa ordre poursuite ordre boobu moo nekkoon procureur de la république Serigne Bassirou Gueye maanaam moom mm-hmm. daa toog fële de justice fële Dakar ñu ne ko diw ak diw ak diw topp ko nga jógee foofu noonu dem présidence. Mhm. ñu jële le président yëpp la OFNAC. léegi nga doom ki la doon ki doon na ci dossier. Mhm. mu envoyé toppal ma diw léegi yow yaa fa topp. waaw léegi bu fekkente ne yow bëggoon topp diw léegi yow yaay waxaat yow yaay jël dossier te jébbali ko pour ñu toppaate. Mhm. est-ce que kon di nga di nga di nga ko yóbbu pour ñu pour ñu toppale. d'accord mën nañu jàpp foofu ne Macky Sall dafa préparé am ah, avant muy dem. Macky foowul de. ah oui Macky dafa foo yéen na ngeen comprendre Macky foowul. non non préparer ses gardes xawmal fan lay mujjee. Mhm. waaye dafa préparer lépp da nga da nga jàpp ne maa xam mbay. Mhm. maa xam mbay la tudd maa xam munoo maa xam bële yaa xam. yaa xam mbay. Euh, euh, ex DG de. waaw da ngeen jàpp ne bu mu taxee di wax ne président. Mhm. question boo xamante ni yaa ngi euh, pendant. waay